ñu ngi leen nuyu di leen ziar di leen jox seen wàcc waay ñëw yaa ak sëñ Bou Ndiaye moom ku ko gis moo xam ne taaliba Serigne Bamba la du sëñ Bamba ñëru ko maanaam di ko laaj maanaam xalaatam maanaam ci bésu safar gi organisation beeg ak ni bis bi demee waaw bu sëñ ñu ngi lay. jëriñ Abdou ñu ngi lay ziar ñu ngi lay fay maaleykum salaam di la jox sa wàcc waay di bëgg ci taxawaayu safar gi ci bisu bi ñu nekk di bëgg ci waa dëkk bi ni ñu génnee dooleel ñu maanaam lii moom dañ cee ne rek waaye du ñun sëñ bee sëñ bee ci teg loxoom sëñ bee ci teg loxoom dañuy sabablu rek dañuy sabablu rek mais nag wax dëgg yàlla rawee na suñ jot niñ ko bëggee woon yàlla defal nañu ko ñu rawee niñ ko doon xalaate delloo siyaar bu wér a wér yaa ngi si jàmm waaw moom ñu koy dund bu baax a baax a baax ñun moom sëñ bi rek daanaka moo ñu ñor moo taxit saaf daal mu ngi fi waaw jëwriñ ñi tamit teg nañ organisation bu baax wax dëgg neex yàlla waaw leen fi teg lépp tamit rafet na dara manqué wul te suba ba léegi ñu ngi fi berndey waaw wàcce nañ fi ay kaamil jàng nañ fi ay xasida waaw léegi zikrullah Baye Fall bi moo fi def si ngoon gi lay doon incha allah waaw. suñ ma paate ñu koy wax euh, Gana Messere nekk talit taal bi suñ Bamba bu wér. waaw di ko laaj xalaatam nag maanaam ci bisu safar bi ci teewaay gi maanaam taxawaayu mag ñi taxawaayu ndaw ñi góor ñi ak jigéen ñi maanaam ak noo gisee bés bi hmm. waa ñu ngi leen di ziar bu baax di leen jaajëfal di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah mbokki Touba Mewane ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm mu mel ne bés bi moom wax dëgg fa yàlla moom li waral lépp lépp lépp lépp matale na xëy na mag ñi jiitu ñu wàccee ñu kaamil yi ba mat sëkk macha allahu rabbi ñu xëy def ajuma ji def bernde yi moom daal yàlla Sëriñ Tuubaa fay ñëpp te teral ñëpp ci bi te dina teral ñëpp bi jaay nabi sallallahu alayhi wasallam barke borom Tuubaa jërëjëf gàdda kàddu yi rafet na mhm. waaw tabarkalla kon ñu xool maanaam waa asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi ziar ñëpp di leen bëggee waa bis moom bis bi moom ñëpp kontaan na barke Sëriñ Tuubaa lii rek lañ am lii rek lañ am ci biir safar bi xol yëpp sedd na barke Serigne Touba dañuy ñaan yàlla nag mu sax ba bu rek bu déwénee mu yokk ci barke Serigne Touba xol yëpp sedd nañ ñëpp bëgg nañ jërë ngeen jëf kontaan nañ incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Mara kon sëñ Ba ñu jéem a